alhamdulillahi alkarim silman ala bi furudin wa waaw salaamaaleykum mbokk yi ni déglu di nu seetaan ngol ngol maa ngi lay gërëm di rafetlu it nag liggéey bi ngay liggéey Sénégal gépp rafetlu ko nag ci lu amul benn werante ndax réew moo gis day am mémoire collective ngën nag di dëkk boo xam ne bii dëkk bu yàlla baaxe la ndax diiru bañ ko sanceeg léegi macha allah benn dëkk jëmul kanam ngën des ga daaw wal fawzi wal amali bil mahrumin summa salaatu bi salaamin tabia ala allasi xasiya ana tabia alal la si man bi maraadi ixtadaa fi sirri wal jahri yakunu muxtadaa huwa allasi haajara lil madiina bi amri rabbi fasaana diina wasilati li maaliki rafiici muhammadin xayril wala safiici وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هسا وين اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عن Nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne négligeons part de l'héritage ancestral. Héritage ancestral doon lu am solo waa ngeen saar xam ko lool di ci yëngatu di delloo maam cër bi mu am parce que bu dul woon maam dara du am ngën nag di dëkk boo xam ne bii dëkk bu yàlla baaxee la ndax diiru bañ ko sanceeg léegi macha allah benn dëkk jëmul kanam ngën des ko daaw loolu nag li koy waral mooy pas-pas ñi nga xam ni. ñoom la fi maam ki nga xam ne mooy maam Madou Anta Ndoye Sarr maam Madou Anta Ndoye Sarr mi nga xam ne moo sosoon gën ngëm ngën Sarr fi bàyyi seen pas-pas seen àndandoo seen juboo ak seen nangoo liggéey ak bëgguñu bëgg dëkk bi moo tax ngën di gën a avancé rek macha allah ngën nag ko sanc mooy Mamadou Anta Ndoye Sarr nga xam ni moom mi ngi cosaanoo Gànjool ñii ma nga jógee dëkk bu ñuy wax Ndegeej Sarr ñii ma nga jëkk jógee dëkk bu ñuy wax Gambul Sarr waaye lu ci mën a doon rek Gànjool la cosaan ñëw fii li nga xam ni mooy particularité gox bii mooy dafa am dëkk yu ko wër yëpp yoo xam ne yëpp ñoo bokk maam ñoo bokk cosaan ñoo bokk lépp muy Guyaar Sarr di Kër Paate Sarr di Ngeen Sarr di Kalla Sarr ànd ak Ngën Sarr loolu it daf ci am solo loolu tax jàmm ji am fi parce que ay dëkk bu fekkente ni ay bokki nan la ñu ba noppi jànd rek jàmm rek am seen diggante loolu tax jàmm rek moo moo mës a am ci ci gox bi ah, bi ci des it mooy maam mu doon tëndooy Sarr. bi mu ñëwee dafa njëkk a dem kàlla nekk fa diir benn bis mu xëy fa ànd ci li ñu ma nettali parce que histoire dañ koy nettali mu jóge fa ànd doomu bàyyam bu ñu wax njugo faayoro saar ñu dem bu ci dëkk boobu ñuy wax njanja boobu ab xaritama fa ne wax maam Samba Sey Njaay maam Samba Seen Njaay am yéene maam Modou Coumba Ndoye am dëkk sancub dëkk ñu ànd ba fii ñuy wax ngën saar maam ma doon tu maam ma euh, saar ni ko fii gën moo indi ngën fii gën moo indi ngën ñu ni ngën saar foofu nag ci taarix dana am ñeneen ñu ma complété waaye li am solo nag mooy ngën bi ko fi gënalee ba noppi ngën dafa gën ndax damay wax ni baax baax na waaye gën a gën baax baax na waaye gën a gën xam nga kañ la gën bi nga xam ne bi daa am dañoo ngën dafa ay doom yoo xam ne kenn ku ci ne ma ko xoon ci njëlbeen da fas jom waaye nag kiñ ci tànn tey ràññ ko ci mooy ki tax li tax tax mooy Mbay Saar Mbay Saar nag ku ne xam na ko Sëriñ Tuubaa daan wax ni boo bàyyee fa nga dëkk loo am danga ko lebal fu ko lu fay mbaa nga may ko ko yëllawul mbay nag loolu dalu ko dafa jóg rek ànd ak ki bokkam toppatooy bokkam li gën a bon ci àddina mooy fonk say bokk fàtte say fonk fonk sa bopp fàtte say bokk fonk sa bopp fàtte say bokk boo am boo boo ko defee loo am da ko lebal ko dul fay mbaa nga may ko ko yelloowul mbay dalu ko loolu tax tey bis bi ñu daje fi ñun ñëpp bi ci des mooy euh, sunu maam ja maam ma doon tundooy Sarr wàcc na waaye mbayit wàcc na ndax mujj ku mu booy gàcce ku mu dal ku ne la mbay nag du ko mujjee ànd ak ki bokkam fii ci dëkk bi. lim fi defit mi ngi fi buñ ci ñëwee léegi maak sama jarbaat Ërif Mbaay dana am lu bari luñ ci wax parce que loolu nag moo am solo fan la ko maam mu doon tundooy Sarr sànce kañ la ko sànc de évolution dëkk bi ba fu mu toll tey ak lan la fi Mbay Sarr def ba tax dëkk bi toll fi mu toll loolu ku ne sañ na ko loolu defe naa ni euh, dama koy séq nag sama jarbaat bi ñuy wax Ërif li ma ciy njëkk a wax mooy Mbaye Sarr Mbaye Sarr 1988 la tàmbali ni dëkk bu ne na nga dem waaye sama dëkk du des gannaaw mu ni li may njëkk a def 1988 mooy forage bi dafa panne mu jënd moteur defal leen ci ba noppi nag ni ko gérer boobu lañ daan wax lañ daan def alphabétisation fonctionnelle ñoo géré ko jàng calcul jàng bind géré ko seen bopp ba tey dëkk bu ne dina manqué ndox ba mu des ngën saar mën ba tukku nag di fay facture ndox ngën saar boobaak léegi manqué wul mu toog ba 1988 ba tey mu jënd benn ambulance bu bees tàq jox ko waa ngën saar ba léegi ambulance baa daw boobaak léegi wëlbatiku jël 3 millions ci médicament indi ko ci dispensaire bi ci poste de santé bi ba noppi di fay chauffeur ambulance bi boobaak léegi ay ati ati at Mbaye Saara jël salaire u chauffeur bi ba tey ci 1948 mu jël dugub ji ni gàñ ak mboq mu dul gàñ indi ko ci dug ci dëkk bi neen na ci nit ñi na ko nit ñi yokki seen dund waaye yemul foofu l'an 2000 nag mbay ni sunu maam jàgg alxuraan dina xamoon ak jaamu yàlla xam nga nu ñu defa nan jubli si jumaa ji tey ku dem ci digg penc ba boo xoolee jumaa ji xam nga ni euh, jumaa ji ay millions yu bare ca dem waaye mbay yemul foofu 2003 ba léegi at mu jot mu def dotation en riz jël ceeb bu bari indi ci dëkk loolu defe naa lu am solo la waaye yëmul foofu korite gàmmu tam xarit ndawal gu ci ne mbay koy joxe jaaraama mbay sax weeru koor wu ne mun leen ceeb ak suukar ak tàndar ma mën a dëkk bi daj loolu it mbay saara wala bu ko 2004 mu ni nag dëkk bu ne day am hygiène nawet yoo dana bari gunóor dana bari mboot dana bari mu ne lépp luy produit insecticide wala leen ba service d'hygiène ñu woo service d'hygiène mu jox leen ko ñu def ñu pompé dëkk bu dëkk bi loolu mbay saara ko def waaye nag yemul foofu mbay bi ñu sañcee communauté rural bi bi ñu xooleen di am nañu ay difficulté mu jël oto bees tàq dugal ko ci communauté rural ba président bi ak ñi ma àndal di ci déplacé wu waaye wëlbatiku nag defar benn boulangerie baax ci ngën saar boulangerie bi sax am na am na am na euh, ñu ko représenté bi ca Louga waaye boulangerie baa ngi fii jël ay gone ngën saar boulangerie pâtisserie viennoise viennoiserie la defar jël ay ay xale ngën saar ñu jàngal leen métier mi ñu di ci liggéey ñenn yor le service commercial loolu fi laa yem ba ca kanam ngol di la xamal nag ni euh, dafa am jukko yoo xam ni ku dal sa kilifa du du du yàgg loolu dalul mbay saar xam nga lu tax dafa am jukkoy ñeenti picc ñeenti picc yi baaxoñ la baaxoñ le corbeau jàmbu jóob le paon charognard mooy tan ak séq corbeau mooy baaxoñ coow la day bari talu am njëriñ mbay boo déggee baatam rek njariñ la saroñaar mooy tax day fekk ñëpp bañ mu bëgg ko moom loolu dalu mbay saar moom li li li li ñëpp bëgg la bëgg li ay bokkam bëgg la bëgg jàmbu Jóob day firi du xam rek ku ma gis dafa ni moo la gën li too am naan il fait la roue dalu mbay saar dafa wàcc boppam ba maase ki bokkam loolu dafa am solo lool. ah gannaaw bu ma sante yàlla julli ci Seydina Muhammadu Rasulullahi maa ngi nuyu Alaaji Taal Ngol-Ngol Alaaji Taal Ngol-Ngol ah, ah fi sa fi sa jëmm ji yegg soo tur weesu na foofu lépp nag ci cosaan ak bëgg sëm réew ak dolli ci réew mi li ñuy wax développement nous les artistes les communicateurs traditionnels ce programme duñu ko tardé ndax. lu ñuy dolli koo la lu ñuy jànge ndax li ngay génne ci cosaanu réew mi lépp nun mënuñu faa yegg mënuñu ko gis te daan dégg di ko jàng nag ci histoire nga dina ko woon jaxaran kon nag man maa ngi tudd alaaji Erefi Mbaay damaa kontaan ci yow gannaaw ma la nuyoo ñuy waxtaan nag fii ci Ngën Saar cosaanal ngeen Saar sunu maam Modou Anta Ndoye Sarr moom moo fondé ngeen Saar en 1865 fekkoon fi nag dameel ci jamonoy buur ya dameel bi fi fekk mooy a Maajoor Coro Faal di chef de promesse booba moo xew Maajoor Coro Faal nag dalal sunu maam mu fii ci dëkk bii sunu maam mu doon tëndooy nag ku nitug diine jàngal xuraan bari xam-xam tabe xam-xam ba laabir ca lool Maajoor Coro nag gis ko xam ne nun nag nun ceddo bëgg nañ borom xam-xam bu mel nii ndax ceddo dafa dëkk ci xëy ci histoire di gont ci histoire di lijjanti lu yoonam nekk mag lu yoonum newul maa jor coroonu mbaan nag ah jël sunu maam muranta saar nag def ko nagu sëriñ mu doon na góor yàlla gu ko mat sëkk lépp lum ko mas a ñaanal rek mu teg ci bëtëb fu mas a takkee jëm xare balaa dem rek laaj ko tagg ko mu digal ko ñaanal ko yebal ko mu dem am ndam ah maajoor coro nag dëkk ak nag moo doon saar nag a ah, téye ko nag bu baax a baax a baax ba sunu maam mu ndooy saar bàyyi ko dëkk bu nu wax gambul saar dajeeg maajoor coro faal fii ci ngen maajoor coro faal mos ko ca xam-xam ba mu neex lool mu téye ko nag ni ko nag damaa bëgg nag nga toog nag fii ma jox la nag ma may la ma may la nag dëkkuwaay ma dogal la dëkkuwaay te nga toog ma ci la ko dogalee dëkkuwaay moom maa jor coro ma mënantu ndooy maa coro boole koog sëriñ mband jóob ca la ko dogale nag fii mu dëkk tey ni ko ndax fii baax na mu ni ko fii moo gën fee gën moo indi ngën saar fee gën fee gën moo indi ngën saar fee gën nag ba mu indee ngën saar sunu maam moo doon tasaar fee gën joojee mu waxoon feeñ na ndax fii dëkk yi gën ci senegal ngën gii ci la bokk. di Bawol dañoo ñëw tey ci ngën saar fekk si fii suñu xarit suñu frère. Mbaye Sarr bi nga xam ne mooy président directeur général bu Sénécartour mu wooñu ci bis biñ fi organisé dafa am ziar bu mag bu fi am ci dëkk bi boo xam ni ki sanc dëkk bi moom lañ koy defal mu wooñu pour ne dafa buggoon ñu defaale consultation médical waxtaan lañ ci lu man ñaari at wante ren la ko yàlla dogal soo gisee ñu sawar ñëw fi dafa fekk ni ñun dañu nekk ay partenaires ak euh, Mbaye Sarr Sénécartour 2007 euh, ba léegi fu ñu soxlaa car pour yóbbu suñuy médecin ak suñuy infirmier ak suñuy sage-femme ci Bawol pour organiser journée médical moom daf ñuy jox car gratuitement ci du ñu laaj dara loolu nag ku la ko defal su soxlaa bisam da nga ci war a taxaw moo tax ma ne ko woon président ñun dinañ def loo xam ni musuñu ko def mooy indi fi quatorze spécialités en médecine loolu docteur dina ci ñëwaat léegi loolu moo tax ñu ñëw fii rawatina nag ñun ku nekk xam nañu ci euh, consultation médicale euh, wante dañu nekk ne ñun suñu réseau bi ci loolu lañ ñu gën a xamee ndax dañoo fonk wér gu mu doomu aadama yi ba nga xam ni xam nañ ni état bi loxo mënul daj fépp moo tax ñun lu ñuy def rek dañuy jàppale état bi di indi ay médecins indi ay médicaments pour dimbale population parce que xam nañ ni soxla nañ ko ndax santé problème la ci Sénégal loolu moom il ñu nangu ko léegi nag loolu moo tax aussi ñu sawar ci ñëw pour fekk si Mbaye Sarr pour jàppale ko ci bis bi pour moom dafa bëgg waa Ngën saar ak i mbokkam yu ko wër yëpp mu yéene leen ko ñun aussi ñu jàpp ci. loolu moo tax surtout ñu ñu ñu gën fi ñun ay taalibe lañ ci rek ñëw répondre à lappel appel de RECAP réseau des cadres du Baol via maître Diakhaté et professeur Lamine Gueye ñoom ñi ñëw pour jàppale tonton mbay Sarr mi nga xam ni moom moo initié la journée pour euh, faire pour jariñ euh, faj population Ngeun Sarr euh, may leen ay garab te kenn du fay dara ñun loolu moo ñu ci indi te biñ ñëwee eh, yàlla def na ni mooy yëpp fekk nañ ko fi. parce que euh, li ñu am ci ay spécialité tey fii jafe na di am ay spécialités dans une campagne médicale parce que y a quatorze spécialités différentes yoo xam ne tey teew nañ fi ku ci nekk mi ngi consulter yàlla def nañ aussi en terme de médicament la pharmacie est bien dotée am nañ garab yu doy ba ku ci nekk euh, ku kun la xool garab yàlla lay war faj yaakaar naa dina fi nañ ko fekk ci pharmacie bi ñëpp ñi nga xam ne aussi Euh, pathologie chronique lay am dañ seen seen traitement day laaj après bu ñu jugee fii mu suivi loolu aussi euh, joxe nañ ay instructions pour patients yi nga xam ne soxla nañ taxawu ak ndimbal incha allah ñu jël seen tur pour bu ñu jógee ci journée bi xool nu leen di jàppalee ba loolu nga xam ni mooy feebar bi leen daal ñu jéem leen cee dimbali te comme ñi fi jógee Dakar lañ jugee euh, ci hôpitaux différents yi yaakaar naa lu fi waaye mën a am rek incha allah dinañ fexe ba sunu kattan. Euh, def jokkook sëñ Sarr ba def ci li nga xam ne moo gën ci assistance. Hmm? Euh, présentement dina xaw a jafe wax leen ñaata lañ consulté waaye euh, dépassé nañ largement juróomi téeméeri nit te consultation yaa ngi continuer parce que y a plus de trente médecins qui consultent avec des dentistes avec waaw lépp fanweeri médecins ñi ngi consulter. ak ay dentiste ak ay infirmier ñëpp ñu ngi ci consultation yi te flux bi mi ngi dem bu baax a baax a baax yaakaar naa ni bu nu jugee fii am na yaakaar ne danañ constaté lu ëpp junni nit te ñu feebar yi bari na parce que diabète ak tension ñooy ëpp ak mu arthrose ci ñi nga xam ne ñooy mag ñi ak problème prostate yi si mag ñi yaa aussi am na aussi ay ay ay ay asthme ay ay bronchiolite feebaru xale yi nga xam ne feebaru noyyi la ak feebaru der yooyu mooy yi nga xam ni yaakaar nañ moo fi ëpp ak carie yi ak cataracte cataracte ci mologie mais yooyu yëpp yi ki ëpp yàlla def na ni am na garab pour fay pour faj ko te incha allah ñi nga xam ne day nécessiter un suivi dinañ leen porter toute assistance bi nga xam ne moo ca war. dafa am lu di doomu tund wi. Euh, xalaat bi li ñu ci dugal mooy dimbali gox bi ndax euh, xam na nañu ni jàngoro ji bari na euh, te nit ñi dematuñu ci docteur yi je ne sais pas xaw ma moyen yee manqué xaw ma dañoo sawarul moo tax bi ma waxtaanee ak président Diakhaté ma ne ko bisu ñaan boobu nu ñaanal suñuy maam soxla woon nañu ñu leen dimbali ci wàllu wér-gi-yaram wàllu wér-gu-yaram nag mooy euh, ñëw seet li leen jot consulté leen may leen garab mu méngoog yi ñuy soxla ba kenn ku ne boo fi jógee xam ni gis nga ci sa euh, gannaaw ba loolu wee dama leen di sant yéen di leen gërëm euh, siyaar bi def nañ ko ay yooni yooni yoon mais amoon nay jamono nag xawoon nañ ko pause mais année yi nañ ne moo sañ ci dëkk di ma doon tëndooy saar bu rek moo la meññ wala moo meññ ki la meññ wala boo fi dëkkee moo la fi indi ba mu indi la wu ma ko waaye trouvé naa ni moo la fi indi nu koy ñaanal di ñaanale suñuy waajur ñu boole ko muy benn ñaan jagleel ko tund wi yëpp ku ne ci juróom-ñaar fukk dëkk yi ñu yéene ci yiw bu ñu paree ko réew mi lu ci wàcc ci réew mu dem dafa wax léegi lu am solo ma tënk ci ñett dafa wax ni doomu aadama féet mi ngi dund mi ngi soxla ñett mi ngi soxla dundam gu muy xewloo mi soxla sécurité mi ngi soxla santé benn santé bi mooy bu soxla dee ñaar rek wér a am bu soxla dee ñaar wér a am moom nag sante wax dëgg yàlla bi ngi ciy jëf lu mu ci man lii consultation bi def na ko fi 2011 2010 yëpp day ànd ak final mu def ko kooku ah, wax dëgg boobaak léegi dugg ci ah, dund bi mooy de 2098 bi nga xamee ni ambulance bi mi ngi koy inauguré dafa boo boole ñetti camion ñetti camion benn bi mboq la def benn bi dugub la def benn bi ceeb la def mu boole ko moom ci population bi nga xam ne moo war ngeen juróom-ñaar fukki dëkk yi ba génn sax dëkk yi nga xamee ni ah bokkul ci commune rurale bi. boobaak léegi loxoom nag jógu ci ba léegi ba daaw ci koor da ko daan def mois de août ndax da daan wax mois de ci la baykat yi nga xamee ni seen loxo dana dem ba diggante bi dañ daan jaay seen semoir di dunde dañ daan jaay kii seen kii léegi nag mu ne a ah, naa ko def koor ndax kuy jaamu yàlla la ca ëpp. koor moo ci moo ci dàq chaque mois de koor ceeb da ceeb dana ñëw dégg nga ah sécurité itam wax dëgg yàlla bi nga tabax fee benn poste gendarmerie booy dugg ci dëkk bi kookoon ñoo ngi ko xayma valeur cinquante cinq million ndax dafa fas yéeneen heure bu pare mu boole ko pick-up boo nga xamee ni ko a daan ko mën daan ko mën yor pour seen intervention kon wax dëgg yàlla li nga xam ne moom la wax mooy yéene na jàmm bëgg na jàmm bu sañoon li muy dox ci nit ñi population bi bu sañoon ñëpp am jàmm wakun wali fi layaati wal ba sunu maam mu doon de ñooñu moo ko sanc wala tafali ala fi booru حافظا واجبا وواضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومنصرا moom tuddewu goon gën gën la ko tudde woon fii fi gën fi mu doon wër boobu la ko ay mille huit cent yooyu ay mille huit cent yooyu mën a mille huit cent yooyu fanu jabbaay muxlisiina la siyaab waaw yi ni saadata nasoora saxaawa xam-xam la woon tamit aw darara ku ku daan ku ku jeexaloon alxuraan la ak téere yi ko woon bi mu fi nekkee bi fi moo gën sët yi ak jarbaar yi ñëpp di ko fekk fi la nekk nekk nekk nekk nekk nekk moom bëgg naa la ba muy dem ca Serigne Touba Njaareem yaa rabbana yaa salaata topp ci moom yóbbu doon da doon moom dafa amoon xam-xam ba fu ñu dégg borom xam-xam daañu dem xooli ko mu dem euh, ko ca mbaam jóge fa dem xam moo ko raw ba fa defee da nga naan waaye nag man wéy waaye bu ma doon ndawa dama topp ci kenn ku mu dikkee ci loolu la taaw yu bare jóge fii dem jaareem fekk bari dellu si wuñu nag xam nga dafa ku ñu wax seen mbay saar ñaara jëkk dem ku ñu wax seen mbay saar ak seen jaali saar suñu dikkee ñoom ci sëriñ bi toog ba gis ko daal di joxe loxo ni ko daal dina si ànd ak ci liggéey bi mu laaj ñu ndongo bi noo tudd kenn ko Mbay Saar mu laaj kenn ki bi mu jógee rek Gaali Saar la tudd noo tudd mu ne ko Gaali Saar mu ne ko Babacar Saar waaye moo war Saar ak Saar bi mu jógee fii ci Ngën Saar kenn ki moom Mbay Saar la tuddoon kenn ki moom Gaali la tuddoon bi ñu nuyoo mu ne ndongali ba mu ko ne ndongali nan la mu ne ko Gaali Saar mu ne ko Babacar Saar waaye mooy ñu ay maam lañu am na ci ñoo xam ne ñu ngi Thiès am na ñu ku ñoo Baye Mour Sarr ca Thiès ñenn ñi ñu ngi booru Kaolack ñenn ñi ñëpp kenn mbokk gi la nag suñu maam loolu suñu maam bi nga xam ne moo jur suñu waajur ñu koy am Mor Ndiaye bi sunu maam boobu génne àdduna sunu maam sunu maam bi seen jigéen bi mu génne àdduna bi mu doon Mor Ndiaye remplacé na ko fanweeri at ak juróom moom moomoon dëkk bi moo jur sama waa ji daan Fati Fall Mor Ndiaye moo yilifoon Bun Saar yilif Goya booba ci jamono sax maa ngi sottee ci man ñu ne mu ngi tuddee Ngën Saar Paris liggéeyal Massaar noonu la ko tuddee woon moo tax ñu saal yi tuddee ak léegi ku moom Biyaar te sant Saar yaay moom gën boo magee ki moom gën it te sant Saar moom moom Biyaar bu magee benn dëkk la juróom-ñaari kilomètre ci yàlla mayoon la borom xam-xam la ñu woon ñun dañoo judd fekk càllale gi ak mbokk ah bi yàlla defee nii fekk sunu waajur sunu waajur itam bi mu fi def ñu ko toftaloon bi waajuram bi bi Mor Ndiaye génnee àdduna ñu ngi ko toftaloon ci benn magam bu ñuy wax Ablaye Sarr ñu koy wax Ablaye Thiaw Diop. ndeyam mu ngi dëkk Kër ah, jooju moom waajuram mi ngi ko mi ngi ko fott mi ngi ko bàqale woon da koo féete mujj féetale sëñ Masamba yu doy waar xam-xam yu doy waar sama papa nettali na ma ko ci. nee na sëñ Masamba wàccee mu néew ngeen am na kilifa yu mag ci Tuuba dañu laajte Abdoulaye Sarr. ndongo li nekkoon ak sëñ Masamba ko wàcc na am na fi alxuraan jamono bu ñëw ñu dellu Tuuba seen i jaay feneen bi mu feebaree sama baay rek la nekkaloon sama baay xale sama bàyyi nee na ma sama benn magam bu ñuy wax mu doon bàyyi ma bàyyi ta bi mu ba jaaxal sama bàyyi mu mu ñëw togg ko ci fas la ko togg bi bu yaram bi sutantee nee dorob la jël yeew ci ndigg yeew ci ci Ablaye Sarr ci gannaaw fas wi yóbbu dëkk bu ñu naan kër baame bu ñu koy sëñ Massamba bi mu ñëwee dawal otoom ba ñëw ngeen dafa ne fu ñu rob Ablaye Sakho sama baay nag boobu yàlla mayu ko année bu ne wax ak sëriñ bi mag ñi ñu doon wax ak sëriñ bi ni ko Ablaye de du mu feebaree ba feebar bi ëpp ko doole dañu ko delloo woon kër baame kër ndeyam fa la faatoo ñu rob ko keroog sëñ Masamba di leen ne ndaxam yéen waa ngeen su ngeen xamoon sëñ Masamba Mbakke bu ngeen xamoon Abdoulaye Sarr fii ngeen koy rob di ko siyaar awal yi waxtaan loolu man ñoo ngi ko nettali nag fekkiwu dëkk bi noonu lay doxee bi sunu maam wàcceeb liggéey rakkam ñëw dëkk bi noonu lay doxe ba ci ñun ñi sunu benn baay bu ndaw bu ñu wax baay Mayoro Sarr mooy borom dëkk bi njàmbur suufas njàmbur ci mu nekk li mu màgg eh, dañuy wax ne Sëriñ Tuubaa ne suufas njàmbur barkee nga waa njàmbur nag wa man faa nekkul haadi ndax man ñaa ngi may nettali keroog bi saxaar bi gaare gaaru Lugo لمن بدخل اهتدى Sëriñ Tuubaa nii ci gaar bi magi Njaago dañu ko boo dem bàyyi ñu dañuy jàpp dañuy fetal jiyaar ak bi saxaar gi taxawee Sëriñ Tuubaa du bañ dañ ko dugal ci bopp saxaar gi. li coow li bare tubaab yi xam nga dañoo bare pexe ñu jël magi njaamur yëpp sol leen ci wago yi ñëpp toog ku ne nga xas na rafetal njaam tubaab bi dee korose wago yi ñoom comme ñu naan suñ tubaab korose tubaab bi daa dee korose wago yi bi suñ bi kon njàmbur soo seetloo jaar jaaru njàmbur maanaam gëstu ko da nga xam ne njàmbur dara ndax réew moo xam ni juróom ñaari at yëpp ñaari li ci ëpp ndax dafa jege désert li ci ëpp nawet ba dana gàntu waaye nawet bu gàntu amul solo li am solo mooy xéewal xéewal am solo moo tax njaambur boo déggee seen mère bu nga dugg ci kër gi xool nit ñi xool jigéen ñi xool da nga yaakaar ni ñoom tëgg yu déedéet te xéewal la ñu am وليجثي بهم ينفع ولما تسيتي بقلب يخصم وليعفي دعاء مصمم قال خناتي بنفس تسبو وزوجة سالعة تعين فلا تقاوى الريا معين وزوجة سالعة تعين فلا تقاوى البريا معين واسبلا كالنفذ الرقابة هل يا ما جلت علي عيسمت واذب سرادي خاتمتك على waaw li tax ma mel noonu ci dëkk bi xam nga dëkk bu ko sa maam sëñ fi sa waajur juddoo fi sama baay ñu mu mokkal baay ñu mu bokkal waajur moo ci gën a nekk ndaw waaye ñëpp ko jox cër amul woon ab jàll sama baay waaye yàlla mayoon na ko jikko joo xam ne ku mu jaxasoo doo ko def ku mu gënul jikko gënoo ko jikko sama baay ko rafet jikko la te boo doon war ci tund wi tudd ko ñëpp daañu ko confié kiis woo mën a am ak soxla soo mën am ak meer moo mën a am boo waxtaanee suma bàyyi da nga wàcc mais dana ci leeral loo xam ne da nga wàcc mel ne mel ne jaan yàlla mayoon na si te dafa ci jikko ju rafet dafa nu daan wax ne nit. moom lépp kooku loolu yaa ko boo fa cosaanoo war koo moom lu fay ku la tee ku la ku ne fa mu lu jëmee boo ko seetloo ay bokkam la kon bu ma fi juddoo yaroo fi ñu ya ma war a fi fasugata fii war naa fi fasuga tax sama baay jëndal na fi mbaam deux mille deux cent cinquante du ma ko fàtte ba tey sama baay na lu ne jëndal na ma ko ndax maay te ku bëggoonu njàmbaar rek kenn mënu ko nit amul jàll nag waaye jàmbaar dëgg jom am na su ma diggee dëkk bi yëpp di benn suma maam mu doon te njaay bi ma la wax nit ñu baree ngi ci dëkk bi seeni maam sama baay maama leen delloo si xam nga tax mu delloo si leen dafa yor dëkk bi foo ne fu la sa nijaay yóbbu mu tàllal loxo daggal la kër ni la sancal jox lay tool ni la bayal loolu moo tax ma bëgg dëkk bi te su ma sottee ci borom xam-xam yi ñu ngi ñuy leeral ne yonent bi nee na sopp sa dëkk bokk na ci gëm yàlla te man damaa bëgg gëm yàlla na soo nit koo ni gëmoo yàlla mu mel man damaa bëgg bokk ci ñu gëm yàlla te am na seex bu mag nettali na ma ci waa juróom dafa ñëw ci Serigne Touba ne ko Mbàkke dama bëgg nga wax ma li gën ci àdduna ma di ko def mënu ko di defar ñam xéewal di defar ay xéewal di ko jox jaamu yàlla yi te bu ci wut xeej yi ak seen mun ko Mbàkke bi nga ma waxee lu gën ba noppi xanaa bon de bëggoon naa nga fàttali ma li gën a yées ci àdduna gën a bon ma moytu ko mu ne ko na nga moytu li yàlla dogal ci jaam mu naqari la nee na loolu sa jàngoro ju dul wér la dëkk bi nag ñii dama bokk ñoom bàyyi ñii di samay baay ñii di samay nijaay ñii di kon fu seen loxo yeggu te xam naa ne dund gi euh, xam naa gëm naa ne dund du wéy gëm naa ne àdduna du kër lu ma am dama ko bëgg bokk sama bopp su kenn du leen ñeer kenn du ñu ñee kenn dama bëggoon ñëpp ñee leen te gëm naa ne bu ma yàlla joxoon xéewalu jaam ñëpp am naa fitu joxe man lu ma bëgg naa ko bokk nit ñi joxe damaa neex su ko jox damay kontaan te xam na bu ma joxee jeg seen nag fi man xaw ma ku ma bañ ak ku soo bëggoon a barale ci man sax di ma laaj fexeel ba jéem ba ñu wax ni da nga maa bañ su may def yaa laay gën na defal ndax damaa xam ne da ngaa juum rek ndax looy bañ lenn dong laa def sama point fort mooy liggéey ak njub loo ma seen ci àdduna ci liggéey laay ne bëgg koo teg ci joonu njub lu ma def lu loolu damaa juum ku ñu juum nag amul waaye su ma defee leneen damaa juum te bu may liggéey du ma kon maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal pour nga xam ne dëkk bii bokk na ci dëkk bi ma gënal ci dëkk yi su ma amoon li gën ci àdduna mbaa ma man koo yóbbu ba mu mel ne Medinatul Munawwar dinaa ko def mu mel ne Medinatul Munawwar ndax Medina dëkk bu ma neex la. 2000 bi ñuy bi jumaa ji nag laa waxoon ngeen saara ma gënal ci dëkk yi foo ma séen foo ma séen mbaa ma wàcc fa ngën ma gën a ma bëgg ma neex ku fanaan fanaan ngën ma gën ku ma jàppale jàppale waa ngën a ma gën a àndal ak waa ngën a ma gën a ndax ñooy samay bokk te xam naa fi ñu ma teg kon lu ñu ma fu ñu ma teg danaa leen teg fu ko raw su ma dajee gone damay jox ñaari loxo su ma dajee mag mu jox mu wekk ma su ma dajee jigéen mu jox ma sama cër kon dama leen a war a delloo seen cër ngeen ñoo ma bëgg dama leen di bëgg ku la bëgg te yëg ko man loolu rek laa def yaaram ku ma bëgg ci ngën saar nga may bëgg ku bañ ci ngën saar nga may bañ du ma leen bàyyi bëgg géej gi fer